ñun duñu dara dañuy woote duñu def dara mais nag comme dañ nekk ay sénégalais suñuy suñuy waajur ak suñuy soxna ak suñuy doom ak suñuy nijaay ak ñëpp di fi yeewoo ñu bokk ci askan bi nekk ay consommateur ba pare nekk ay industriel investir ci dëkk bi ndax bëgg réew mi moo tax chaque fois suñu wootee rek ay kilifa jóg ñaan ñu bàyyi mais nekkul dañoo yaaxus wala dañoo ragal parce que ku ci réew xaalis bu ñu toll xam nga ne doo yaafus doo ragal mais dañoo muñ ba sonn depuis 2014 bi Macky Sall président Macky Sall nekkee président nekk di wàññi les de première nécessité en 2014 mu jëlee mburu mi 210 grammes indi ko 190 grammes. jëlee mburu mi jar fanwe fanweer ak juróom indi ko fanweer la suñu coono judd ay jàmbaar ak i gor rek ñoo fi nekk moo tax dawuñu suba ngoon ñuy bëgg lu neex Sénégal consommateur yi bañ am problème parce que suñuy waajur lañ suñuy nijaay lañ suñuy lépp lañ boo ba léegi nag ñuy muñ def nañ fi des assises en 2017 ki nga fat yéen ñëpp a ngi foon recommandation yi di temps de Alioune Sarr mu nekk ministre du commerce yi lépp mi ngi fi ñu jël lépp teg ci tiroir yi ba ñëw ba 2019 crise bi duggaat métti ñu dem fi grève le premier ministre d'alors Boun Abdallah Dionne woo woo ñu instruire ministre bi fi nekk tey Aminata atom Diatta réunion ci lañ tenir 200 réunions yooyu ngeen di dégg ñu am prix structure pain bu bees mu ngi nii l'actuel directeur di commerce Ousmane l'actuel directeur du commerce tey bi nga xam ne mooy directeur monsieur Oumar Diallo à l'époque moo nekkoon le chef régional du commerce de Dakar kon tey bu ñu ko nommé directeur du commerce intérieur kenn gënu ko xam jafe-jafe boulanger yi parce que moo ko doon piloté nañ nañu bu nekkee foofu boulanger yi seen coono jeex na parce que il a toutes les informations yi nga xam ne moo war pour mu yeggali ko ci kilifa yi pour ñu mën a saafara mbir mais dañuy tourner loo autour du pot ñun ay boulanger lañ mais nag état bi daf ñu rouler dans la farine loolu nag moo fi jeex bu ñu fajul problème boulanger ñun on est décidé ma ñëw dañu décréter trois jours de mais sax ñoom dañu radicaliser wu léegi dootuñ ubbi seen usines yi tan que état fajul seen soxla mais peut-être ñoom juróom-ñaar rek lañ mais je pense que loolu gàcc la tey ci Sénégal réew mu toll Sénégal sept usines di employé presque ay mille cent 1250 personnes direct 15000 indirect ñu mun a toog semaine yàlla état waxu ci naangu ci yu ci loolu ñun daf ñuy rusloo ñun ñi nga xam ne ay doomu Sénégal lañ te di xam li xew ci àddina bi ñun boulanger yi on parle de 1800 ëpp na loolu. quinze mille em euh, trente mille emplois direct ëpp na lool quarante mille indirect ëpp na lool ñun ñi yëpp tey sunu yaay sunu bàjjan yi sunu ñëpp jigéen ñee yor kër yi ci mburu mi lay yëngatu di jaay di ci joxe dépense di ci fayal seen i doomi jàng am na ci ñoo xam ne tey seen yaay ñoo leen fayal jàng bu ñu nekkee nekk tey ay carte mburu mi lañ ko jëlee secteur bu mel noonu état di ko négliger ñun dañu am kers am gàcce ci ci nguur gi fi nekk ci Sénégal parce que dama gis ne say doomu réew suñu defee tant d'effort waroo leen seetaan te Sénégal mënul nekk benn ilo ci àddina bi boo xoolee li xew ci àddina bi bale bi yokku na dëkk boo dem Afrique Europe Amérique farine dafa yokk mburu dafa yokk quoi Sénégal ci bëgg affaire politique politicienne ñuy nax askan wi di lor ay doomu Sénégal yoo xam ne tey dañ leen waroon di encourager di leen jàppale parce que dañu jël seen alal investi ko ci réew mi pour réew mi dem ci kanam mais defuñu loolu dañuy nasaxal dañuy toroxal di ñu noot bu dégg bëccëg loolu nag dañ ne toy na boulanger Sénégal nee nañ su état réglé wul lii dootuñu mbur moom ngeen jéggal ñu ñi sant Diop mais dootu leen ko gis ci réew mi dañu détenir trois jours yi dañ koy maintenir mardi mercredi jeudi même tey bu ñu woon négociation duñ ko def on Sénégal boulanger Sénégal li ñu sant mooy nañu observer trois jours yi ba pare ba xam ñooy ñan su doyul ñu dàbbaliwaat mburu mënatuñ ko jaayee fanweer mënatu nekk dafa doy maa ngi leen sant di leen gërëm loolu moo nekkoon wax